presse a Hadj Ahmed Aidara bismillah ataa ba dara ndaw ba day a ah. donowaar tribunal ba yëngu na démb tribune yéene kaay na dëgg la ma ne la ginnaaw nag day seede ak yi nga xam ne kon ña fa jaar ñëpp daal dinañ ko yëkkati day waaw lundi bi di ñëw a ah. la ñuy daal di déglu nag procureur la day lan lay wax lu nar a lool maa la ko wax waaye gis ngeen ki démb day waaw ay kaddu Massamba Diop toll ci juróom-ñaar fukki at maanaam day ca tribunal ba waaw ma ne la yëngu na lool mooy bàyyi Moustapha Abou Khatim ma ne la góor gi loo moom ci boppam kon la mu bëggoon day mooy faatu na ci diwaanu libi galee sa toolu xale ngir mën a fekk nag martaba ak maqaama wi sahaaba yi doon ànd ak yonent bi alayhi salaatu amoon góor gi ne waaw góor gi ma Samba Diop ne sama doom day jiyaari si diggantaan njaay la woon sax te maanaam nag man mii day tere ko loolee daanaka mooy tere ko sax ne ko bul demati ci jàkkay ak ci jumaa yi la ilaha illallah l'observateur ma ne la seere ba ah! yéegal na tribunal ba waacee kër gi ba degré zéro eh. ndaxte góor gi ma Samba Diop day nee na sama doom ji dama ko doon ñaanal ngir mu faatu ci ca libi gëla ëpp la la gi ma day ci Vox Populi ak Le Quotidien yéene kaay waaw sama day da doon sàkku ci man ngir ma koy ñaanal pour mu faatoo ci wàllum jihaad ginnaaw ga nag laa mujj dégg ne kon faatu na décembre kon 2016 la ilaha illallah cay terrorisme gi terrorisme libération ci sénégalais day état islamique Daesh waaw daal di nañ koy teg loxo ci Bilbao Espagne waaw la kon ay marocain day fa la ne ca jamono joo xam ne nag ña ngay dee ca ya. waaw autorité bi tamit day nit ñaa génn adduna bi nga xam ne nag Papis Mballo daal di koy fàttali ne day waaw Sénégal day dóor a ne lañ njabootu day maa la wax Cheikh Oumar ak Cheikh Tidiane ci njiitu réew mooy mu daal di wane publier contrat yi nga xam ne dox na ci diggante Sénégal day ak Gérard Sénani waaye tamit njëkk li ngay fay ci autoroute à bi nañ ca doy waar ñu ko la ci fi ñooy wax mooy nguur geeg li mu def ci wàllum alal ci autoroute yi téeméer boo jël juróom-ñett fukk yëpp waaw kon ñun dañoo xamul lan moo tax ba njëg yi seer ni looloo jaaxal ñëpp yow ci am diggante bu gàtt gàtt sax distance bu gàtt waaw ngay péage boobee waaw bokk na ci autorité gën a seer ci àdduna wërngal këpp gi laa la wax boog sobi li ne moo taxit Omar Faye leeral askan wi day indi na kayit ya de te ko ca kaw taabal ja ñaata la autoroute bi kon jar la ilaha illallah leeral askan wi waaw nee na musiba mbaa bokk ma bi ci téeméeri at yi mu suñu ko dund laa la wax le scandale du siècle ndax nguuru Sénégal gi day waaw ñetti téeméer ak juróom benn ak genn wàll ci ay milliards la autoroute bi jar Eiffage moom tubaab yi waaw defuñ ci lu dul juróom benn téeméer ak benn ci ay milliards eh way samba ma ne te lu tolloog fanweeri atu yàlla yoo xam ne day français ñooy fayeeku daram ñun duñ ko ci te moo ni diggante ba Douar ak Pikine waaw mais xaalis ba ca dem yëpp gouvernement bi la xaalis sénégalais la te Eiffage ci boppam kon ñoom ñoo koy exploité loolu la ñëpp xamul lii lan la ma ne la ci lu tolloog ñaar fukki kilomètre diggante Pikine ak Diamniadio waaw téeméer ak ñeen fukk kon ak juróom-ñett yu tëgës lëf ci ay milliards la autoroute bi jar juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar yu tëgës lëf xaalis su nguur gi la laa la wax ci ñaar fukki kilomètre day marocain yi def nañ fa lu tolloog ñeen fukk ak juróom-ñett ci ay milliards tubaab bi ñoom Eiffage kal ko rek si seen 61 milliards yi xaalis bi yëpp sénégalais ñoo ko fa def laa la wax kon kay xayma gii boo xoolee juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards rek waaw ma ne la mënoon naa defar Dakar ak jam ñaajo laa la wax Omar Faye leeral askan wa yemu ca ndaxte rijaal nee na waxuma la sax waa Eiffage ne defuñ ca dërëm waaye tey ji la day boo génnee seen juróom benn fukk ak benn ci ay milliards yooyee waaw ma ne la tubaab bii laa lay wax nii fii ak fanweeri at yàlla 30 ans autoroute bii lépp lu fa ruuse seen poste lañ koy dugal eh way Samba eh way Samba Omar Faye ci bokk sobili ne léegi nag ñëw leen ci njëg yi ñu xool jëlal leen ma Maroc rek wala Tunisie gee waaw ci téeméeri kilomètre laa la wax téeméer ak fukki dërëmu CFA ngay fay Sénégal nag ci 50 kilomètres ngay fay juróom benn téeméer ak ñeen fukk laa la wax 3200 aller retour nga def 6400 la ilaha illallah ah. la ilaha illallah te autoroute bi nag Sénégal moo ko moom kon nag Macky Sall ko diggante ba tubaab yi lée dajaa war a dema sës te fu mu yem neex waaw waaw ñu ne déet ni waay yow ñu nekk ci naxar ba président la génn àdduna barki dee mboo njaay waa Eiffage ne ñoom dañuy organiser benn match de gala ah. samedi bii di ñëw ca stade Amadou Barry eh waay Samba Omar Faye ne match boobee du fi am laa la wax na ñëpp ju taxaw ngir mën a wax ak Gérard Sénac nii di dem mu dem mu lu ci kaw nii ñu xamal ko àdduna te jamono jooje politiciens yaa nga ca réew mi quotidien ne Karim Wade day ñàkkat nekkam candidat ah. tribune yéene kaay ah, Omar Sarr nee day léegi Karim dikk Ndeye Mbacke jabaru Madické woon ci tribune yéene kaay waaw lancé na coalition ba day bis a ñëw nee bokk ci opposition te bokk ci pouvoir a ah, ci gën ci sénégalais rek la ñuy àndal Bougane Gueye Dany ngo dox waa Bougane Gueye Dany mi ah, daw nii la ñu lan la Bougane lan lay daw nii ci dëkk bi 2019 taxu koo jóg di aa professeur ne waaw professeur Moussa Diaw ne day politique de Bougane Gueye Dany Cissé waaw en tout cas ci ay jege ñaaleem daal nee nañu ko baax la waaye nag doomu aadama mënu koo teree wax la mu xalaat maa la ko wax Sadia Gueye kuréelu tailleur yi ci termine yéen waaw nee na Macky Sall day ngir mu wutal juróomi junni doomu aadama liggéey ma ngay yàq juróomi téeméeri junni cinq cent mille emploi mar d' Italie Serigne Mamoun Mbacké ci libération yéen waaw ne lu mu la wax du ko def Macky Sall ba mu toogeeg léegi defaralul waa Daaru quotidien yéen kaay waaw nee na day ñooñu nga xam ne fu tooy takk waaw ay jur lañu jur gu ndaw lañ nii rek jur gu ndaw gi Cheikh Sadibou Fall ne Souleymane Ndéné Ndiaye ci boppam waaw sàkkoon na ni képp ko transhumé nañ la dóor bal nga dee ah waaw ci boppam waxoon na fi ne gis nga transhumant yi ay kaña lañu kaña kaña yi ngeen gis mbedd mi kaña amuñu rasu amuñ jom du dignité amuñu ngëm-ngëm du conviction dara may wax ñuy fàq di dem ci abarti boo xam ne daanaka